Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, c'est un immense plaisir de me tenir devant vous pour vous adresser d'abord mes salutations accompagnées de mes remerciements suite à cette très forte mobilisation lors du parrainage, ce qui m'a permis de le passer au premier tour. Et cette mobilisation a existé depuis mes débuts dans la politique il y a de cela 20 ans. vingt ans que j'ai eu à faire dans l'opposition avec vous, à vos côtés, dans les villes, les villages et les hameaux les plus reculés du pays. Et ces différents séjours m'ont permis, naturellement, de vivre avec vous les différentes difficultés, mais de noter la forte déchéance du tissu national, aussi bien du point de vue économique et social. Et avec les cadres du parti, nous avons travaillé sérieusement, et avec la coalition aussi, à travers le programme que nous avons élaboré et qui s'appelle le Sénégal bon à vivre et beau à voir pour apporter des réponses précises à ces différentes préoccupations. Nous avons travaillé sur la sécurité, aussi bien au niveau de nos frontières qu'à l'intérieur du pays. Nous avons travaillé sur l'agriculture, mais surtout sur l'industrialisation pour assurer à notre pays une croissance durable. Nous avons travaillé sur l'éducation, la santé. Nous avons également travaillé sur les infrastructures pour régler l'inéquité territoriale et faire en sorte que sur les 196 000 km2, partout où des Sénégalais se trouvent, qu'ils puissent disposer de conditions de vie décente bu ma taxawee fii seen kanam wax ak yéen habitué leen di wax ak yéen ci fulla ci dëgg di wax ak yéen ci lépp li nga xam ni daf ñuy jëmale kanam xam naa ni boo leen ma defee confiance ci élection yi ñu jëmale le vingt cinq février deux mille vingt quatre doo leen am nattable ci li ma wax dinaa ko def ndaxte dama gëm ni lépp lu am ci beneen réew mën na am ci biir Sénégal compétence yi ñoo ngi fii mais il faut ñu def que képp ki nga xam ni yaa yelloo nekk ci benn poste ñu teg fa bu ko defee xaritoo bi ak parparloo bi demee benn boor li ma gëm mooy Sénégal lépp luy corruption luy concussion daf fi war jóge li ma gëm mooy Sénégal danoo war liggéey ci jàmm danoo war boole nit fexe ba xol yi dajaloo xel yi àndandoo nu jëm ci kanam te lu mën a ne kon ci campagne bi daanu développer suñu programme di leen gërëm di leen sant seen taxawaay jërëjëf